bi ñu génnee ci élection législative yi ñoom kat ndaw yi di politique bokk ci benn bokk yaakaar xalaatuñu nag banque seen yoxo jàpp nañu ni vacances yi am na ci xalaat mooy lan organiser tournois de football amale ko ci Mbàkke zone yi nga xamante ni nag ñoo nekk ci biir Touba ci benn bokk yaakaar ñoo former des équipes seen biir ngir nag saafonte gën a waxtaanee gën a nekk jàppante joxante loxo fàttali fi xewoon mooy défaite bi jëm ca kanam seen tournoi bi nag jàpp na ni jóot na lu bari ndaxte seen première match ouverture bi si diggante zone quinze ak euh, zone 9 jàpp nañu ni kat satisfaction totale la ñu am sa cëppaandaw la score bi sax mi ngi jeexee 0 à 0 ñu dem tiro bu zone 15 moo mujj yi kenn si initiateur yi di Mohamed lemin Lo jàpp na ni nag ñoom ndaw yi de toujours ñu ngi agir si côté positif te nag sax si wàllu politique dara leen jaral ñuy ñaawoo bay xaddi. te ñun ñoo mën a toog di xaar loolu moo tax ñu ne nañu organiser tournoi interzone invité ci 15 zones yëpp boole si les policiers. pour ñoo xam ne ak ñoom ñoo bokk société bi ñoo bokk société bi quoi. lu jafe woon na nag organisation bi lu jafe woon na mais yàlla def na ci jàmm ba ci doon seen parrain kaddu yi la yëkkati gis ni nag mag ñi war nañu mën a xool si ndaw ñi ndax initiative yu ni mel day gën a nag doxal waaye toog di xaar événementiel lu si ay campagne pour agir loolee gisul ni kat mooy doxal seen bile parti. kenn ku ne xam na ne la mais bi ñu organiser jël aussi alliés yi boole leen ci loolu day wane ne ñun ñëpp benn lañ te politique bi ñu gëm ñun fi mu toll nii ak fi mu toll dañu gëm na ñun pour situation bii ñu nekk réglé wu faw jeunesse bi ñoom ñooy ñëw jël ko seen loxo loolu lañu gëm moo tax ñuy daje di waxtaan lii nii fi mu toll nii doo ko gis ci benn leader bu mag ñi tuddee seen bopp leader yu mag yi jeunesse bi rek ngay gis bu dara nekkul ci terrain boobu ñu nekk fi di fi def dara ànd nekk. lancer euh, appel président de la république su fekkee ne bëgg na li des diggante fii ak deux mille vingt quatre mu mel ni mu bëgg et après mille vingt quatre mu gën a mel ni mu bëgg mooy na compter ci jeunesse am parce que tamit fi mu toll nii opposition bi fi nekk nii ñoom ñëpp ay jeunes lañ boo leen doon tudd tey kenn ku ci am quarante ans nekku ci wala quarante cinq ans kon tey su bëggee jël ay mag yoo xam ne si ne am nañ soixante dix ans wala quatre vingt ans di leen jox yenn postes yi. dañoo télévision yi défendre bilan président même dañoo jombale seen bopp ñoom ñu invité leen ñu toog wax ngir Macky Sall ñun jeunesse bi man nañ ko ñun jombalewuñ ko suñu bopp parce que ñun gëm nañ président gëm nañ politique am. tournoi bi dina dem nag lu tolloog ñeent ba juróom juróomi fan lu tolloog fukki équipe ak juróom daanaka ñoo ngi si biir chaque jour dina benn match bu nu parrainé benn leader.